mbégte beneen yoon toogaat ak yéen ami internet yi Saloum 72 heures la ñu daal di def ci commune bu Ngayeen Sabax comme ni ñu ko defee ci diya tey nag daal ak maire bi ginnaaw bi nga xamante ni ci village yu bëri yoo xamante ne ñoo nekk ci ngeen sabaax nga xamante ni euh, moom la leen seen maire liggéeyal ba xamante ne seen ma seeni mandat jeex na euh, euh, gox ak goxaat yi nga xamante ne ñoom ñi le ñoom lañ fi daal di tàcc loolee nag daal di tax askan bi tamit war a mën a joxe seen xalaat ci li nga xamante ne ñoom liggéey nañ ko fi juróom-ñeenti at ñu toog dénk leen li nga xamante ne mooy seen bopp am na lu bëri loo xamante ne def nañu ko waaye nag du terrain bu ñu paree danañu daal di jakarlo ak nga xamanteni moy ndey bi ligi euh, di maire bu commune bu Ngayen Sabax di Goumba Gueye monsieur le maire amaat nañu mbékté benen yoon bo carte gueu plateau bu Saloum ak ci xana rek ñu bayila nga daal di nuyu ak suñu internet wa assalamu alaykum ma len nuyu yéen waa Saloum Actu di bu sen téwaay ci ko groupe Ngayen euh, lu yàggat ñëw euh, xam exactement gannaaw bi nga xamee ne nekk nañ fi ak askan diir bu diir bu def suñu mën ngeen gës su xam li nga xam ne moo doon suñu sas lan lañ ci bay ak lan lañ ci bay du leen dalal jàmm Euh, monsieur le maire tay euh, démb yakar naa ne ànd nañ ak adjoint bi euh, dugg nañ ci village yu bari def nga fa tamit ay réalisation yu takkoo takku ndax amna lo xamanteni xamante ko foqati ne nit ki moko mom askan bi ci seen bop ñom daal dinañuy xam ne wax ni yow nga xamanteni ne yaay maire bi def nga lo xamanteni ni fogu fooguñu ko woon sax ci yow ci lo xamanteni commune mo koy def tay ñu lay wax rek parce que bilan yu bari laal nañu ko lu ci melni éducation lu ci melni santé lu ci melni électricité hydraulique routière bi aussi def nga ci dara transport bi kontaan ñun sant nañu yàlla bu baax parce que ñun juróomi at lañu liggéeyal si mairie bi waaye wax dëgg yàlla dëkk bi moom am nañ si chance commune bi am nañ si chance ñëpp waaye rawatina dëkk bi commune bi am nañ chance parce que am nañ courant fu mu toll nii glace loo am am glace frigidaire yaa ngi daw si dëkk bi courant baa ngi leer dëkk bi su la poteau rotee sax nga mën for loolu yëpp aaye euh, monsieur le maire ànd ak Macky si liggéey bi loolu moo tax ñu mën koo am Ah, ah, kii marché bi su mu toll nii dëkk bi yëpp xañ kenn du to tooy loolu suñ ko am ay Macky Sall la ànd ak liggéey moo tax ñu mën ko am. léegi fu mu toll nii eh, hôpital bi fële def na fi salle boo xam ne itam comme ni ko jigéen ñi waxee kuy accoucher foofu nga accoucher doo dem doo dem fenn xanaa ba mu tëleen rek waaye doo dem fenn kenn du la xamal dara loolu suñ ko am ay Macky sa ay Macky Sall si li nga ko am. loolu jàddu wéy am na toilette yu yu yu normal si école bi. jigéen ñi apart part góor ñi à loolu suñ ko am saa yaay Macky Sall lañ ko am yoon boo xam ne fu ni dafa dem en dérité ba si buntu néeg wax dëgg yàlla yoon bu mucc ayib mën ngaa dem fii ba Dakar doo egg suuf su bett loolu suñ ko am saa yaay Macky Sall lañ ko am ak ànd bu ànd ak maire de liggéey ànd bu ànd maire de liggéey maire tam wax dëgg yàlla duut ku tayal su tayaloon lii yëpp duñ ko am su ko defee nag ma ñu ngi sant yàlla rek. su ko bi. gars yi ñëw na. hectare guñ kii bi waaye nag courant bi moom léegi lam bi tàkk nañ kon loolu la bi mu fi toogee ba léegi lu bari daal eh, jël nañ ko dëkk bi mu ne lu rafet. ndax alhamdulilah rabbil man en tant que de village bu ma jëlee dëkk bi ak léegi mu ngi nekk 2011 laa jël dëkk bi mais nu ma fekkee dëkk bi eh, sonn dëgg laa fekk dëkk bi yàlla def. bu ma ko jëlee léegi alhamdulilah ma tambeek président ba nga xam ne moom macha allah euh, ku am gaaf bu ay ànd ak tamit maire ba nga xamante kooku tamit gaafam macha allah rafet na lool macha allah alhamdulilah yàlla baaxee ñu li nga xam ne mooy forage bi yàlla baaxee ñu ak yeneen yu bëri yoo xamante ne ci biir gox bi ci commune bi yëpp macha allah alhamdulilah lu mel nii école boobu ngeen romb sànq na école bi gis nga euh, bi gis nga ni buñ fi daan dansi danga daan gis danse yu garaaw a garaaw moo si doon kii yàlla def nag loolu tamit yëpp yëpp dàq na alhamdulilah collecté nañ ko macha allah xale yaa ngi jàng normal ci euh, maanaam ci loo xamante ne moom ci mucc ayib lañ ñoo jàngee euh, forage bi tamit maanaam ci euh, teen teen yi ñu fi fekkoon mu ne ngi nekkoon 45 profondeur ci suuf moom lañ daan wëgg yàlla def loolu dàq na. alhamdulilah ñu ngi ciy sant maire bu baax a baax ñu ngi ko ci gërëm bu baax de sant président euh, ba nga xam ne moom euh, moom la bootu ba mën a lijjanti lii nii ñu ngi ko ciy sant bu baax euh, da tàllalaal loxo na bu baax parce que bëgg nañ agsi bu dugg dëkk bi comme nawet bu jotee ay bagages yoo xamante ne bu wàccaan ci àll bi laay wàcc bu baax pour dugg si biir dëkk problème la maanaam axe bu jógee ko foofu ci tarara bi dugg dëkk bi euh, da ngay gis même bagage yi nga xam ne ci forage bi lay jëm si wala yenn ci biir dëkk bi da ngay gis mu yombal mbir mi ñu ngi ko ci sant na bu baax table selleri ci boppam euh, da nga daan gis ñu jafe-jafe gasoil lool mais alhamdulilah lu yëpp mu ngi dàqal bu baax a baax léegi da ngay gis léegi bu gasoil amul sax da ngay gis bu naaju tàngee moom selleri bi mooy mooy faral di root benn ndox amatul boobu lu mooy taxaw ñu ngi ciy sant na bu baax a baax da leen jaajëfal na bu baax salaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi Demba Ba chef de village Jama Mbayeen waaye Jama Paaleen Mbayeen lañ koy wax mais Jama Mbayeen rek la ñu wax. Euh, maire lim ñu defal moom it boo mel ni mënu maa wax lépp waaye nag am na lenn loo xam ne mën naa ko ciy wax lu mel ni magasin bii moom moo ñu ko defal ndax magasin moo suñ koy am. électrification bi nga xam ne kii pour samp nañ ba pare mais takkagul ba tey loolu moom moo ko fi réalisé ak yenen ak yenen ak yenen yo xamne mo lu ma koy wax ñu dal su maire mom sant ko ak gërëm ko rek lañuy wax waaw bu fi bu amé benen mandat itam bu woté ñun xam naa ne ba dëkk bi mo fi mom maire lañuy woté woteel né def la candidat mom lañuy woté inshallah mom allah lañ fas yene da lim ñu defal jabar nañu fi jaar mais lim ñu defal mom rek moñu ko defal waxuma ñeneen defuñu de waye mom lim fi def mom rek moko fi def waaw mom rek bëgg nañu encore yoon bi joggé jógee Diamagadio jëm ba boori Daaru Kuddus yoon bi ni route nationale bi bëgg nañ mu mu défal defalal ñu ko def ko euh, rangana même bu féké taliñ ko na na am rangana loolu moom suñu ci suñu mébét ci li bëgg mom mom ci la bok waaw alaykum wa rahmatullah en tout cas il nous appuie récemment dans la semaine même on avait organisé un essai collecte en argent, donc pour que ces activités puissent se dérouler sans problème. En tout cas, bon, bien que nous ne sommes pas politiciens, mais il est en train de faire du travail. Seulement, nous avons aussi en contrepartie des, je sais pas, des, revendications ou bien, en tout cas, on a besoin de murs de clôture. Donc, si vous constatez l'école de Loin donc l'école est à l'entrée du village. Euh, il y a des animaux aussi en divagation donc qui passe surtout pendant les heures de récréation, il y a problème. Donc il peut arriver que des ânes ou bien que des chevaux, des charrettes, des motos Jakarta qui traversent la cour de l'école. Souvent même on est, on est témoin, n'est-ce pas, d'une course poursuite entre moto Jakarta et douane. Et ça, vraiment, ça ne met pas les élèves à l'abri. Donc ils ne sont pas en sécurité. Donc ça, vraiment, c'est des mots dans lesquels nous voudrions l'appui de notre maire Goumbagaye. Euh, dans les dans les dans les meilleurs délais si possible. Euh, li ñu ci mën a seede de magasin bi moo ko moo ko fi liggéey daaw te euh, commune Ngayen bi ñun suñ ba départ xan fi day dem de sabax dafa jële gerte daan nañ fanaan ci xàll bi même lu nekk day day nekk ci yoon wi te fi ne diggante fi léegi mi de sabax dem fi la nekkee gonte dem dem léegi te ñëw te li yëpp moo ko moo ko moo ko fi def boo seetee ci commune bi. ay yoon yu bëri yoo xam ne defar na ko fi mu ngi ci commune bi te fi nekk nii sax am na ci loo xam ne sax ñu ngi ko préparé loo xam ne sax pareegut ndax mi ngi war a demati fii euh, beneen raanaab bi mi ngi war a demati fii ba càmba ci programme yi yooyu yëpp liñ ci liñ war a liñ programme yoo ne def te si ndiga te jëmakaay ci te ba tey moo ko mottali moom kay li ñuy wax rek kontaan nañ ci liggéeyam trop trop trop trop trop wax dëgg yàlla te ku laa biir la te courant bi te wàcce na lool ndax dëkk yi ma ci ci ci commune Ngayeen fii mi dee sama sax amu fa mi de sa sax amu fa kon nag euh, li ma ci waxam daal liggéey liggéey moom ni ñu ñaan daal yàlla na koy yàlla ñu mayaat beneen mandat daal moom moo nekk la ñuy ñaan gis nañ ci suñu bopp lool wax dëgg yàlla te ñëpp góor góorgóorlu na lool lool lool lool lool lool kontaan nañ ci liggéeyam lool lool lool lool lool lool ñu ngi ko bëgg lool nag waaye amaguñ ko waaye nag li ñu wóor mooy tey boo demee Daaru Baab boo demee Looyen boo demee euh, Pësi Ngayen nga dem Ngayen Saba nga dem Siin foofu yëpp seen lamp yaa ngi tàkk te yaakaar naa benn mandat ku ci mun a réagir lu toll loolu kon li lay wax mooy gàcci ngalaama kon li ñu wax mooy gàcci ngalaama ñun nag li ñuy wax àbbaluñ ko ko bëri na nag ñu wax ba pare ñu ne ah ñooñ de dañoo bëgg dañoo bëgg gay rek waaye ñun bëgguñ gay suñ bopp lañ bëgg gay su ñëwoon ci dëkk bi liggéeyut deful luñ teg suñ bëtit xam nga lu ñuy defam su ngeen ñëwee laaj ñu dañ naa xamuñ ci dara kenn mënu lu tus ndax li am solo mooy suñ carte ñoo moom suñ pas-pas ñoko mom moom suñ gëm ngëm moo ko moom waaye lim def ku ñëw laaj bi dañ la né li ak li moko fi def. te kenn mënul ñëw dindi ko fi nga xamante ni moy mooy année bi ak sa nekkin ak sa rapprochement ak bi nga xamante moy wa nga Ngayeen en tant que maire. waaw li nga wax c'est important parce que que ñaar mo am. ñi fal ak ñiko ko fal ñun ñoy ñu fal moy wa mairie bi moy mairie bi ñi ñi fal moy population yi nga xamné ne ci ñoom dañoo bokk ci suñu administré. damay wax it ne nag rapport boobu moom euh, laaj ko expliquer du expliquer ko du du luy jafe li tax mooy nit ki bu la falee jiital na sax lay wax du moo sax fal parce que baatu fal xañ na dafa mais bu la jiitalee ci kanamam boole la ay nit ma ànd ak samay adjoint yi samay secrétaire municipaux ak personnel bi yëpp ngir ñu amal développement commune bi suñu suñu rapport ak ñoom mooy ñu jegewante di gisante ak ñoom di mun di waxtaan ak ñoom sukkandiku ci conseil municipal bi nga xam ne ñoom ñoom loolu moo leen fi teewal kuréel googu moo leen fi teewal à chaque trois mois ñu mun di daje di xool suñu plan d'action yi di xool liñ def di xool liñ def di évaluer di natt. ba tey moo jur résultat yi nga xam ne ngeen fekk ngeen ko ci àll bi. Mhm. Euh, tey état civil euh, ku ne xam ne état civil dafay jànkuwante ak ay jafe-jafe surtout ci askan bi nga xamante ni euh, des fois dañuy toog tardivement ñu bëgg a ñëw ut ay kayit yoo xam ne très rapidement dañu koy bëgg a am ngir daal di dem satisfaire seen ay besoin est-ce que loolu yéen tamit bàyyi ngeen ci xel bu baax a baax. waaw état civil maa ngi ci sant yàlla bu baax di ci gërëm ki nga xam ne mooy sama officier d' état civil muy sama adjoint bi ngeen àndaloon de muy Samba Gueye ndax moom laa def délégation signature mm-hmm. signature euh, tey tey tey tey yaakaar naa depuis 2014 def nañ ci état civil loo xam ne ak taxaw nañ ci d' une manière pragmatique boo xam ne tey tey tey fii may wax ak yow soo bëggee kayit extrait boo xam ne nekkul bu nekkul boo xam ne déclaration la tey tey da da koy am soo bëggee tey tey nga am ko chaque année dinañ organiser audience boo xam ne lu mu néew des centaines et des centaines de personnes en collaboration ak tribunal car na dinañ ko amal ba ren sax amna ci yo xamné tay mu ngi fi ak ñun war nañ ko livrer seen waram donc mun nañ jàpp ne état civil état nak moo ñu ci jappalé bu baax baax. et tamit au passage le ministre des collectivités des collectivités territoriales bi nga xamné chaque année dina jappalé mairie ci walu état civil donc ñun état civil machallah

parce que tey enregistré nañ ci clé lépp loo xam ne état civil la du ba déposé ko ministère mais dafa des nag dafa des nag tey fichier boobu ñu utal ko mot de passe. parce que tey doo jël rek fichier état civil teg ko ci comptable comme neex nga ñëw utiliser ko donc le ministre ce qu'il nous a suggéré à travers la direction de à la direction de l'état civil mooy na ñu may temps ñu utal ko benn mot de boo xam ne di ngeen ci mënut liggéey di wàcc moo gën fekk na it na ko léegi na ne état dañ bëgg toll foo xam ne. soo tolloo Kaolack bëgg tey extrait boo xam ne Ngayeen la du aajowu sax ngay ñëw Ngayeen mais hmm. à partir de Kaolack boo duggee ci ci fichier bi rek boo duggee am na benn code buy boo ko dugalee rek di nga mën a am say extrait hmm. te doo déplacé ñëw Ngayeen hmm. donc mun nañ jàpp ne daal effort bi nga xam ne commune def na ko ci état civil di diir bu gàtt diir bu gàtt gàtt gàtt gàtt bu soobee yàlla dañ toog leneen la ñuy wax waaye kayitu juddu moom euh, dootuñ ko waxat fan yii si ginnaaw am nañ ci benn forum boo xam ne ci état civil la léegi lan lañ ci tënk mooy chef de village ñëwoon nañ ICP ñëwoon nañ sage-femme yi ñëwoon nañ donc xale bi maternité lay juddoo dañoo bëgg li li ñu doon def lañ bëgg gën a yaatal ba gën ko bëgg a yaatal bu juddoo maternité au lieu que yow euh, certificat d'accouchement boobu muy am au lieu muy dem ci kër ga day ñëw directement ci mairie bi bu ko defee am na ñoo xam ne ñoom dañoo chargé wu ci dëkk ya ñoom lu ñu la doon ndawtaan sax yow ci sa ngénte dañ koy jël def ko ca extrait boobu pour que yow nga am extrait hmm. pour que xale boobu moom day day raw moom du bokk si ñoo xam ne ay jugement la ñu am

décès également bokk na ci donc loolu yëpp na ci ñu koy waxtaanee ak population. Mhm. Euh, tay ngeen def euh, ay at yu bari ci mairie bi jéxal mais gis nañ né ci euh, côté éducation commune bu ngayen bokk na ci commune yi nga xamante ni avancé nañ trop ci éducation parce que gis nañ construction mur yi gis nañ construction bloc yi yi nga xamante def nga ko fi lan moo tax nga def appui boobu ci éducation. en fait biñu ñu ñëwee yees dañoo def étude du milieu. Mhm. bi ñu defee étude du milieu ñu xool l'ensemble des problèmes de la commune de Ngayène Sabakh bi ñu xoolee problème yi dañu xool ni priorité bi nekkoon na éducation ak santé parce que jamono boobu mun naa wax ne école yi xawoon na sooxe Résultat yi daan na xaw a santé bi aussi la même chose ñu ne kon légui comme rew njàng moko yor Té jamono bi bo amul xam-xam mëno xam té it li mas gënoon a

jàng ba ëllëg duñ ci def erreur. baykat bi sax tey bu demee bay bu jàngee olofal mu mën a am poids ñaata la ak ñaata la am ci xaalis bu loolu paasee ñu met di def le paquet maintenant sur l' éducation muy école primaire yi ak CM bi ba tey ngay am na lycée boo xam ne dañ am na ñaari classe seconde déwén incha allah dina am ñaari classe première donc jéego yu ñu ci def yépp yépp daal dañ jàpp ne xale bi war na mën a juddoo ci dëkk bi jàngee ci dëkk bi. amé diplôme ci dëkk bi tekkee ci dëkk bi ñëwaat liggéeyaat ci dëkk bi mhm. donc tay xalé mëna jàngé jàngee ngayeen fi certificat amé fi brevet amé fi baccalauréat joogu ngayeen dem université bu tu vois donc loolu lañ amoon comme objectif on l'a réalisé machallah mhm. tay école primaire mu ngi fi ñu ngi fi dëkk yëpp CM bi mu ngi fi lycée bi mu ngi fi amuñ benn problème manque une professeur manque une table banc manque une salle de classe machallah allah. Mhm. amul benn abri provisoire bu nekk tey ci commune Ngayeen amul Ben école bu amul ndox amul Ben école bu am salle de classe booy dugg tay gisofa gisofa gisofa link wara gis pour bagage pour jàngalekat yi mën a jàngale. Mhm. à l'exception de l'école de Sine Ngayeen bi nga xam tay dafa manki manqué kat mais yakar nañ ne avec le recrutement de 5000 enseignants yi nga xam ñu koy xaar bu ñëwee on va compléter le gap malgré que man lancé woon naa appel pour ñu recruter un volontaire mu ñëw jàppale walé ñu foofu mais malheureusement amuñ compétence gisuñ benn compétence bu mën jël en charge le volet pédagogique moo jusqu'à nos jours ça reste un problème à régler au niveau de Sénégal. gayen mhm. loolu daal lañ ci am comme ci côté ci côté parents yi démb am na ñu ñu interpellé di wax ne ñoom jëndatuñu benn fourniture parce que dëgg leen di doté euh, ci ay fourniture bu ak école tijjee waaw xam nga loolu man bu ma parents yi waxee dinaa gën a certifier réunion parce que fii ba may def réunion conseil municipal jour bu ngeen ñëw mhm. réunion conseil municipal su ma koy def nekul ne man maire may tok ci table direct di wax wax bare réunion bi tas déedéet bi bi ngeen di ñëw keroog da ngeen fekk président commission éducation mo doon présenter les activités de la commission éducation donc day tok ni dend ak man def exposé sur l'éducation. atum ren mi maire bi li la def ak li ak li ak li population ni ak ni bu paree mhm. dañu ubbi liste ku bëgg laaj-laaj mom itam day tontu suñ paré je fais la synthèse mom mhm. bu paré mu jóg président commission santé ñëw il fait la même chose su paree mu jox président commission jeunesse ñëw su paree mu jox commission environnement ñëw donc ci biir laaj ak ci biir euh, débat bi dégg naa ci conseil wax loolu ne fourniture doy na macha allah bari na te am na qualité. Hmm. mais loolu li ma ci vund rek mooy fourniture yi bu ñëwee fii il y a une commission boo xam ne moo koy réceptionné plus la commission éducation ñoom buñ ko réceptionné sur la base de l' expression de besoin parce que nee naa leen nit ku mënoo ko jox lum la laaju hmm. donc le collecte day def expression de besoin mu indi ko ñu satisfaire expression de besoin bi convoquer l'ensemble des directeurs de fii ñu def dispatching bi def procès verbal de réception pour chaque école commission éducation jël auto bi tek bagage yi dem ci dëkk ba fekk fa chef de village bi ak directeur école bi wàccee bagage yi def procès verbal bi ñu signé ko ñu delloo si ma procès verbal bi bu ko bagage yi non seulement jënd nañ ko dina baax mais day yegg fa mu jëm day am suivi et jusqu'à nos jours depuis 2014 chaque école procès verbal bam, jot ci bagage fourniture maa ngi ko yor fii mun ko donc lolu dama ci remercier le la commission éducation. Mm-hmm. di ci remercier chef de village di ci remercier directeur école di ci remercier CGI di ci remercier directeur CODEC bi Moustapha Ba. Mm-hmm. bi nga xam vraiment mu may jappalé ci fànn googu ba population yi parce que c'est mérite la parents d'élèves yi ñoo fay impôt impôt bobu tay état jël ko plus li mu jappalé ak li commune bi am ñu jëndé ko fourniture scolaire motax dama damay xam képp ko xamné sa dom yaa ngi ko bàyyi ci mbedd mi jàngul doomi jàmbur ba nga dendaat muy jàng ñu jël fourniture scolaire di ko jox jàppal na yow sa impôt bi ngay fay am na lu ñuy jël di ko jox doomi jàmbur mu koy jàngee yow sa doomu jàmbur hmm. alors que loolu c'est pas bon yow yaa ngi fay impôt fexeel ba sa doom mun ci mun ci maanaam mun ci jëriñu donc li nga wax ci mur it la c'est la même chose cependant nag c'est pas total c'est pas parfait 100 pour cent hmm. des na parce que gis naa ne am na école yoo xam ne tey war nañ ko clôturer daar daar hmm. parce que avancement moo fekkee école bi yoon romb ko woon te tey am piste bu ko romb mi mbis bu ko romb donc yoon école boobu dañ ko war a clôturer ba xale yi ñu mën a assurer seen sécurité ci piste bi ba benn oto du mën a créer benn. par exemple euh, l'école de euh, de exemple l'école élémentaire uh-huh. école boobu tey boo xoolee. jaar nga fa moo tax boo demee ci àll bi si ngay a xam réalité bi. Mm-hmm. donc école boobu tey yoon bu bu baax romb na ko te oto yi dañuy daw lu bari. donc dans l' obligation tey yoon dafa def ñu clôturer ko ba nga xam ne benn xale buy génn ci buntu ba rek nga mën a génne. Mm-hmm. kuy dugg ci buntu ba ngay duggee ba nga xam ne dinañ sécuriser environnement école bi. et comme l' également d' autres comme l' de Taïf. Mm-hmm. bi nga xam ne yoon jógoo ko na yoon boobu ci pegg école école franco-arabe donc école boobu dafa mérité tey ñu clôturer ko c' est l' exemple de l'école de Passingayène C'est l'exemple de l'école de de l' de de l' de l'autre là de l'école école de de l' école de euh, Loyenne euh, euh, l'autre là Passingayène mhm. Passingayène donc c'est l'exemple de l'école de Passingayène donc yooyu yëpp dañ leen war a clôturer ba nga xam ne tey tey tey fa maa ngi nuyu ñëpp di nga mën a am sécurité ci école nuyu ku nekk sa tur ak sant man la Daga Ndiaye ICP poste de santé Loyenne je euh, di féliciter monsieur le maire ci activité yi def ci santé parce que gis nañ bu baax taxaw bu taxaw santé ngi taxaw santé santé mu vraiment ñu ngi ko ci féliciter bu baax aussi lépp lu santé rek euh, soxla nañ soxla nañ bu baax. bâtiment indi ñu salle euh, salle de maternité.

Euh, di la tonton Goumba franchement merci parce que jàpp nañu si lu parce que man bu may euh, en 2019 juillet 2019 à mon enfant, xam ne nañ fa mais avec son soutien son aide qui nous a apporté on a pu relever le défi ba tey jii soo leen visité case sax am amélioration yu bëri yooyu nag am na parce que dimbali nañu tamit ñu tabax suñu logement bi mais tamit di wax tamit mu gën a yokk xam ne des na tamit dimbalu ñu lu bëri mais des na parce que commencé entamé nañ benn bâtiment soo leen paree soo leen xoolee ko entamé benn maternité boo xam ne soxla nañ si soutien aide même au niveau de la case pour paiement euh, yeneen employé yi tamit soxla nañ si ndimbal tamit mu si gën a taxawee rek ñu gën ko siy gërëm parce que fournir na ay effort considérable pour la réussite de la case pour le bien-être de la population loolu tamit ñoo ko siy gërëm di ko ci si jaajëfal di ko ne tamit lu ñu gën a dolli rek ñu jël mais vraiment ñaax si si ñëwaat ñëw bi ñu fi ñëw rafetlu nañ ko trop tamit soo leen ko mën a jaarlelee tamit si yeneen autorité yi gën a compétent préfet ñoom sous préfet ñëpp jot si tamit dina si baax que ñi ngi nekk si wukk yi nii di liggéey soxla nañ appui tamit soxla nañ appui pour nag gën a mën a propulser suñu carrière ci kanam suñu mu nee jàppale daal gën ñoo jàppale parce que ñun ay agent de santé diplômé dañoo jàng génn ak suñu diplôme tamit ku ñu si mën jàppale tamit pour euh, ñu gën a egg si kaw tamit bëgg nañ ko lool. inauguré yàggul ndax ñu ngi tijji en 2019 août 2019 waaw monsieur le maire moom vraiment jàppale nañu trop si suñu liggéey waaw vraiment jàppale nañ trop si suñu liggéey ndax poste bu bees sax te ku ne xam nga ni post bu bees moom démarré ko yombul. parce que il faut nga am ay moyens lu melni lo jëndé médicament affaire yoy mais vraiment japp na ci torop wa japp na ci torop ndax dinañu jox fonds de dotation chaque année loxo ma ngi ci bir dal ta ba tay tamit loxo ma ngi ci bir wa assalamu alaykum may tudd Moussa Ndaw nek ICP chef de poste de Sine Gayane Quand je su fekkee problème poste santé je franchement c'est à remercier taxaw soxla aussi taxaw depuis réalisation sur le aussi ouverte euh, à chaque fois luñ ko wax aussi da ci taxaw baax a baax ci taxaw baax baax mu nekk mbiram garab yi mbiram carburant pour ambulance bi et autre loolu yëpp franchement et eh, luñ ci soxla bu fekkee yëg na ko mu ngi ci taxaw bu baax a baax a baax waaye kay eh, di ko eh, ñaanaat ndax poste bi bu xawee sori lool xaw ne si àll bi am na yeneen problème yoo xamante poste de santé mu ngi koy rencontré yu si mel ni suñu maternité bi dafa xat lool pour euh, amul suite salle suite course bi yooyu yëpp daanaka doxul normal xanaa kay ñu koy gën a ñaan incha allahu rabbi mu gën see yokk taxawaayam loolu daal mais li si des moom franchement ñu ngi koy remercier di ko ñaanal yàlla

dama daan def bi ma jëlee li yees bu nekk ci mairie bi yees. Mhm. ma doon dox di génn di dem ci hôpitaux yi ko ci xool. Mhm. mais bi ci njëkk sax du question bi ma laaj moom. Mhm. boo xam ne ba léegi su ma koy wax dana am lu ma yëg ndax dama daan dem ñoor fekk suñu jigéen ñi wérul ñu tëdd ci karo yi maternité di xaar échographe nga laaj nit mu ne man fanaan naa fi ñaari fan. te ma def échographe. alors lu waral loolu parce que benn machine échographe moo nekkoon foofu au niveau départemental.

tout l'engagement mais benn jigéen d'autres dem di ci ay pendant ñaari fan avons fait ko bim bi mu labee mu am ma formé comité comité bi saytu ko ñu koy bu baax chaque semaine technicien bi dina ñu def rapidement da def le dem sa et puis tu payes moins cher fi nga fay tu payes ici à 5 5000 francs de hmm. francs bi ci santé parce que comité bi saytu comité communal tu vois hmm. donc c'est l'exemple de Darou tey daru Mbàpp dafa nek ci frontière Gambie. Mm. mais dëkk bobu daan dem ba seen jigéen buñu am doom sax Gambie la dem amé doom buñu faju Gambie lañu faju ñu ne pon ñoom dem nañ ba ñom dañ gëna a seen bopp Gambien que ne Sénégal. Mm-hmm. mais c'est pas normal y a un programme pima bo xamné day jàppale frontière mais daa jéem jaxoso ak ñom ci la jéem a jaag ak ñom def samay projet jébbal ñu jàppale ñu. construire ñu poste santé bu nga xamné c'est bien équipé and ak ambulance médicalisée. Mm-hmm. avec équipement tout complet te sax des na. Mhm. parce que bëgg nañ comme parce que au lieu tey fi mu ne nii. Gambien ñoom waa Daaru di dem Gambie di faju les Gambiens yi ñooy ñëw c'est le uh-huh. phénomène contraire. effectivement tu vois donc da nga daan gis xale boo xam ne day juddoo Gambie dëkk Daaru mu dem juddoo Gambie ñu defal ko këyitu Gambie su màggee ñu yóbbu ko Gambie muy muy muy jàngi population devenir maintenant des Gambiens. Mhm. mais tey nit day ëmbee Gambie ñëw amee si doom Daaru Mbam. Mhm. donc tey c'est le phénomène contraire moo tax ba. fooguma mhm. la loolu day sax day régler problème mu frontières yi. bien sûr day régler problème frontières yi day tax kenn ku ne xam. fi nga am fi nga amul. Mhm. te booy xool man bi may ñëw benn poste de santé laa fekk. Mm. benn poste de santé benn ambulance benn oto bu ndaw R4 tey tout gros village yëpp am nañ post santé mm-hmm. xanaa peut-être Diamanthié wi moom la ñu war a def léegi ak Passy Ngaye. Mm-hmm. te allah yaakaar nañ ne nu mu gën a gaawee dëkk yooyu dinañ am. mais si xoolee signes mhm. santé. plus ambulance médicalisée. Mhm. Mhm. santé plus ambulance médicalisée. ambulance c'est des ambulances médicalisées. santé plus ambulance médicalisée version plus maintenant des équipements plus maternité pour une protéger en bonne santé dans des conditions normales.

pour nga am orientation fi ngay faju problème la. Mm-hmm. mais gis nga li avant avant am lu njëkk avant faju c'est conscientiser les populations waxtaan ak ñom sensibiliser len mm-hmm. à travers des des causeries. tay poste santé bu amé rek relais am matarnon matron am bàjjenu gox am sage-femme am mais ñooñu dañuy dugg ci dëkk bi di waxtaan ak ñi ñu am prise de conscience sanitaire. Mm-hmm. mais est-ce ndax damay xaar ba faju du a dem faju ji wala damay aar sama bop balay jàngoro di ñew d'où le coronavirus. Mm-hmm. ñu xalaat donc donc ñu waxtaan ak nit ñi wala ni nii ak nii la ñuy def bien vrai que si frontière bi ci lañ dëkk ñun ñoo gën a exposé mais macha allah yàlla dimbali nañu ci corona bi ba amuñ ci benn cas boo xam ne Ngayeen ci commune Ngayeen la juddu. Mm-hmm. amuñ ko ci. loolu on touche du bois. Mm. peut-être benn lañ ci am boo xam ne hôpital la gaañoo fii la dëkk waaye ñëpp xam nañ ne duul lum jëlee Ngayeen.

45 tonnes beaucoup de bagages mis en àndal. donc bi ma xoolee li de la li ma li mu fi wàcce pratiquement bépp kër bu nekk ci commune Ngayeen nga war jot appui mën mën a toog ba yàlla musal la ci C'est nga que moo tax ñu am ci résultat yi et ñu ciy profité de remercier le président de la République parce que le Sénégal a un ci rang classement au niveau mondial beaucoup de pays ont un. moi je je viens je viens de Istanbul j'ai rencontré les Français là-bas c'est ce qui vient de Nice de Lyon mais ils m'ont dit que le coronavirus c'est le bordel ils n'ont pas une mesure extraordinaire pour gérer ça mhm. ñoom résultat que le Sénégal ñoom fait leen mhm. donc dans le Sénégal nous pas am résultat donc je ñu remercier le président de la République tiens à remercier le ministre de la santé mais tiens remercier également les ICP de la commune de et ICP Ngayène dafa une chance ñu am personnel yoo xam une stabilité sanitaire ay jigéen nag ñoo ci mhm. donc gàcc ils ont un jigéen parce que sommes nous, ICP sommes sage-femme te ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Mm-hmm. amul benn bis bu ñu ma oo fii ne ma poste santé bi am na coow lii am na problème bi amul moo tax damay wax ne lu ngeen bëgg laaj leen ma ma def <laughs> parce que vraiment seen réalisation yi la ko fi def daaw en 2020 ci lañ ko réaliser aussi tam ren 2020 2021 ci lañ électrifier dëkk bi.

ñu ñu ngi fi ñew ci commune bi 2014 bi mu fi avant muy ñew fi ni dëkk bi mun nañu wax ne dara amu fi won amu doon yoon amu doon marché amu doon électrifié wuñ ko mun naa wax ne dal lu bari manké won na fi mais en 2014 ba légui indi na fi marché électrifié na dëkk bi défer na fi yoon am na fi sax ay ay ay magasin de stockage donc lool lañ fi jotta def fi ci Loyenne wasalaam ak école bi école bi aussi tam am na ay toilettes toilettes yoo xamante ni ci école bi def nañ fa ay toilettes yu mucc ayib donc loolu yëpp ci réalisation monsieur le maire la bokk fi asalaam. moom kay kontaan toon kontaan dëgg lañ ko si kaas yaay a baax fu ne dëgg neex waaye marché moom looyeen sax mën nañu ko dajal dëgg yàlla looyeen fii moom Fissilo yi moom taxaw na ci moom Fissilo yi moom taxaw na ko trop trop trop monsieur le maire fii ci Loyer moom moom du fi daanu moom ko topp ma moom man bàyyi naa léegi waaw ma wax bàyyi naa moom bu ñu sonn naa sim naa sama ndomb moom loolu moom la ñuy dolli si moom kon tax nañ trop dëgg yàlla macha allah mu la ñu àndal moom. waaw da ñëw laaj ñu li fi maire Goumba Gaye def maire Goumba Gaye moom yaakaar naa li mu def Loyer suñ ko doon wax suba ba ngoon jot sax yaakaar naa du pare parce que ñun waa Looyeen moomee fu gumbe gay gis nañ ci suñ bopp bu baax a baax a baax a baax amul dara loo xam ne manqué woon nañ ko léegi macha allah sant nañ ci yàlla bu baax a baax a baax xanaa di ñaan kay ñu ngi fas yéene waa delluwaat ko fu mu nekkoon rek waaye ñun waa Looyeen moom moomee fu gum aaye gumbe gay gis nañ ci suñ bopp bu baax ñoo ngi tàllal suñ loxo di ñaan ñu nekk ci kaw ñu gën ñuy jàppale pour mu mën ñu gën a jàppale daal sant nañ ci yàlla bu baax. ñu yoon ndax amuñu woon yoon boo demaan Médina Sabakh bëgg a ñëw fii da ngay taxawal ci dëkk bi ci Médina Sabakh end ba ngoon am lu indi léegi nak da nga xëy fii dem Médina Sabakh duggi marché ñëw togg añ nga ne kon wax dëgg yàlla gàcce ngaraam courant bi am na lépp daan dugal doone yoo dugal da ngay dem ba Médina Sabakh wala nga dem fenen. dugali ko fa docteur yi si buñ liggéeyaan ba seen weer buñ bëgg dugal dana dañoo dem Nioro wala ñu dem fenen. dugali lépp loo xam ne ci mbiram courant la buñ ko waraan def da ngay dem jëgaane ko ci beneen dëkk buñ naanee glace dañ fay téeméer dem jëlee ko ci yeneen dëkk loolu yépp dàqu na. léegi boo amee ñaar fukki dërëm wala fukki dërëm da nga naan glace ba doylu soo bëgg a connexion da tëdd fi nga nekk connexion soo bëgg dugal say données muy docteur fu ñu nekk lañ ko taxaw dugalee ko fa dëkk bi leer na nañ bu neexee xale fu faran ci dëkk ba bëri set. ben nol amatu sàcc bu fi dugg bu génnee sen la koku wax deug yalla sant yalla gorgolu nu mu jani man de ci dëkk bi amna luma ko fi gissal ndax sama carte santé bi man maay matrol bi ma fi nekkon ma daan fajj gomi biiru dawi xalé yi yeb ma ko daan fajj sama yobbu sama rapport dama daan doxé fi ba nga en yobbu sama rapport mu ñu mu ma la jappalé ci sa katan ak sa man-man ci li ngay def ni ma pour mu réassurer ma dimbale la bu commune bi bu ñu mayee comme maa fi nekk nekk bu ñu fa mayee carte de sante naa la ko defal ñu maye fi carte di santé mu ñëw tabaxal ñu ko mu nga nee ma nekk fi daana ko jog moom yàgg waa dëkk bi ne comme monsieur le maire def na fi lii te nga xam ne wax dëgg yàlla eh, tabaxalut kaas bi xari ak bëy yi ñu ne nañ jéem a la ñu jóg ñu ne tam. def solidarité dimbale xamuñ fayam maire Goumba Gaye moom xamuñ fayam ndax maire dimbale dañu. génne ci ay jafe-jafe dañuy defal lu ne booba nekk gud meer booba mu ngi jàngale taayif bi mooy jàngale taayif gii dañuy defal ay groupement dañu yóbbu sàmm di commerce yi lebal xaalis lu ne fu ne dugal nañu fa daal dañuy lebal xaalis booba nekk gud meer saa su ñu lebalee te xam ne léegi ñun fay nañ 100 pour cent bu ñu fayee 100 pour cent ñu des fa apport lu ñu fa dese lu ne xam mu xam ne weesi nañ te lebal ñu lépp lu ñu fa dese dana ko récupérer kenn ko ne mu dugg sa néeg ne la am sa xaalis xam nga loolu yombut fu ne génne nañu fa te meer Goumba Gaye dëkk bi yàgg naa ñoom de te booba nekkul meer bi mu nekkee maire ak léegi nag lu ñàkk lu ne lii ba ngoon mu ngi ci mu ngi lijjanti fu mu xendoo ak fu mu fanaan fu ne commune am bekk fi xendal moo fanaan bëri na surtout daaru bàpp waaw ndax tey jii dëkk bi boo bu doon guddi la tey da nga yaakaar ne guddi gi moo gën a leer sax bëccëg bi ndee courant bi courant bi fi andi wax dëgg yàlla mucc na yëpp lamp yi bax nañ te niñ ko bëggé won ci ay bolsu am amé nañ ko wax dëgg yalla te dafa daj dëkk bi yëpp nak waaw te mu ñuy mu piste bo xamante xal nañ ko ba paré piste bi xal nañ ko ba paré fu ndol dool pour té xéer rek mo ci dess te fan yi néew nii eh, danañ ko commencé waaw encore bo démé sax ci walu mbay mi daf ci dox jéego yu rëy rëy rëy ndax mu ngi ñu ay sëy yoo xamante ne nii maanaam pour yombal engrais bi rek la waaw am na bu fi nekk bu ñuy wax coppewool coppewool boobu dafay dimbali nit ñi Peppermans mu ngi fi wàllu mbay mi itam dox na ci jéego bu rëy rëy rëy boo xamante ne ni lépp lu ñu doon jafe ci engrais mu ngi gën di yomb waaw kooku moom bokk na ci li nga xamante ne moom bu baax a baax ñoom dañoo bëgg sax fu ndool nii présidentiel président jox ko ñetti ndombol tànk mu nekk maire nekk député nekkat euh, conseil territorial euh, loolu dañoo bëgg sax mu nekk ndax moom liggéeyam ci goox bi dama jiitu dama jiitu euh, dama kiyal gox bi rek mais département bi moom moo nekk secrétaire départemental te jego bu am solo dafa mekk moo moo dafa mel ni moo taxaw taxawaay président départemental kon dañoo bëgg mu nekk. Jama Moussa maay ASC Mataron ci poste de santé case de santé bi. ñun dañoo kontaan si Goumba Gaye wax dëgg yàlla Goumba Gaye kay moom li li mu def si commune bi ñu ngi ko doog a gis si commune bi ndax magasin bi moo ko fi indi yoon bi moo ko fi indi machine yi wal may nañu ko te ñu ngi ñuy indilaat bineen machine soq ñun jigéen ñi dañoo kontaan si Goumba Gaye te poste de santé bi taxaw na si léegi ñu ngi bëgg a ubbi suñ poste de santé bi ñun Goumba Gaye li am li ñu am si Goumba Gaye wax dëgg yàlla commune Nguéyeen ñun ñu ngi ko doog a gis. kon bu laajoon mairie pare ngeen ngir jox li nga. waaw waaw jokk ko bu baax sax te ñu ko koy ñaanal yàlla si barke Serigne Babacar Sy maa ngi ko koy ñaanal mu jot a. marché bi liggéeyal nañu si liggéey bu mucc ayib boo xam ne am nañ ci kontaan te am mbégte ñu ngi ciy jaayee kontaan am nañ ci kontaan te am mbégte lool ak yoon wi nga xam ne moom la ñu fi liggéeyal ndax liggéey bu mucc ayib am nañ ci mbégte ak courant bi nga xam ne tàmbali nañ ko fi mu ngi ñëw te yegg seen loolu itam ñu ngi ko ciy sant di ko gërëm suñ monsieur le maire daal kon am nañ kontaan ci moom lool sant nañ ko gërëm nañ ko kon euh, pare ngeen pour falaat ko li nga xam ne mooy élection locale li ñu jëm ah waaw incha allah ñu ngi ñaan jàppale ñu waaw moom kay moom ci jàmm loolu rek lañ bëgg ku ñu jàppale bañ fal ko loolu rek bëgg si moom mooy suñu yéene yéene nañ ko ko lool nag hmm. yàlla ñu ci yàlla jàppale dañ mën koo fal incha allah fàttali ñu tur bi jéegay jéegay jërëjëf eh, man la El Hadj Omar Gaye Chine Ngayane nekk conseil municipal ci mairie bu Ngayane eh, man la léegi dama li ñu ko comme ni ñu ko waxee rek noonu la wax si réalisation yaakaar naa fii li ñu fi def moom siin ngeen duul kenn di laajte ndaxte euh, dëkk la boo xamante ne nii bu tumuranke la boo waxaan oto boo jëlaan ne ko siin ngeen dala naan mënumaa dem siin ngeen léegi indi nañ fi yoon boo xamante ne nii euh, tey euh, li xam taxawaay bi si maire def tax na yoon boobu fi mu ne nii incha gars yi commencé nañ ko ba léegi tey ñu pare ñaareel ba tegu si am na poste de santé problème la fi woon léegi bi mu ñëwee dox nañ ba pourcentage bi taxaw na am na euh, salle yoo xamante ne def na ko fa euh, mar euh, encore marché problème la def na fi marché yaakaar naa ne njëriñ teg ngeen seen bët ñaareel ba tegu si toolu maraîchage bi gis nga ko moom ak marché bi ñoo jàkkaarloo en face si dëkk bi. yaakaar naa tey si bii ñu nekk tey maire do def na si jéego yoo xamante ni incha allah yaakaar naa ne ay féegi ay weer yu néew incha allah dëkk bi nañ si gis seen bopp. Euh, dañ si gis seen bopp ndax euh, site la boo xamante ne nii xamul euh, kenn ko xam ne gis nga si bopp tey dañ ko collecté nekk mu nekk 800 mètres carrés 800 mètres carrés yooyu ay tool borom tool yi daan ko bay xamul kenn koo xamante ne tey bénéfice nga si te yaakaar naa ne tey problème la boo xamante ne si dëkk bi Euh, bu metti bo xamné dëkk bi du euh, kenn ko xamné man nga si man. le président de la République a parlé de l'électrification universelle on a vu que euh, fi ci commune bu Ngayeen Sabax yaakaar village yëpp jot nañ ci courant ñi ci jotagul yi tamit romb nañ poto yi nga xamante ne samp nañ leen muy wane ne ñu ngi ci phase terminale pour que courant bi mëna mat fi ci Ngayen Sabakh waaw c'est vrai xam nga yalla dafa def bi ma ñëwee en 2014 bokkoon na ci li gën a jaaxal nit ñi muy affaire courant. Mhm. li tax mooy boobu Medina Sow rek moo yore poto courant bu ñu jege diggante ngay nag Medina Sow dafa nekkoon 15 kilomètres. Mhm. te boo xoolee benn kilomètre électrification presque nekkuma ci technicien mais yaakaar naa ne ay 8 millions jusqu'à 11 millions dina ko mën. Mhm. yaakaar naa donc pour nga jëlee woon poto courant Medina Sow 15 kilomètres indi ko ba Ngaye c'était pas facile. Mm parce que nous avons une capacité financière Et si le projet boo xam ne soumettre nga ko Si xoolee coût bi rek wax ne la xaalis bi taal Si dëkk le su et j'allais atteindre un pourcentage plus que ça mm-hmm. et je suis le président de la république parce que je avec l'appui de mes collaborateurs je remercie également mon ami Insa Diallo mon grand frère bi nga xam ne lettre bu ma ko jox mu jëm ci président da koy jox mu amee moo ñu jàppale ñu a courant bi 15 km MT. dawal fil bi 7 km de dëkk bi indi bu Ngayeen mais batay électrification universelle bi directeur général bi Pape Demba Biteye. Mhm. muy kouba, nek nekk doomu Kaolack. qui a récemment inauguré euh, l' de Passy de mais en même temps avec mon grand frère nekk doomu Saalum si tool ni bu taxutoon ak yéen tey tey ma am rencontre ci bureau moom à Dakar. donc mom aussi il connaît les réalités il a fait tout le salon, il a fait café, il a fait tous les départements pour recueillir les idées des maires. Mm. à travers ça moi aussi j'ai fait mes expressions de besoin bi may 2014 fekk moon ben dëkk bu am courant ci commune Ngaye sama fi nga tok ni ben ben panneau solaire la branché pour mu mën brancher son portable kon tay buñ démé ba on est à 60 d'électrification cent universelle te yaakaar nañ ne balay incha mois de janvier bi wax élection yi am naa yaakaar ne. Mhm. dëkk yu bëree bëri incha allah day am courant bu jeexul it luy des du bëri. Mhm. am sax programme il y ne na dañ a parce que y a le programme Gov mu nekk le programme allemand mais dama la wax ne nag dama sonn ci courant ba nga dama ci dox de 2014 en 2019. 2019 mhm. la nga yeen ngi am courant. te ngay bi ñu ko defee commune Tall ak léegi nekk na fanweeri at ak juróom-ñeent bu ñu ci yokkee man nag diggante bi mu nekkee commune Tall bi mu nekkee commune nekk na fanweeri at ak juróom-ñeent. Hmm. parce que le président bi njëkk a mu nekk bi njëkk a jël comme président commune Tall muy Abdou Mbaye Gaye def na fukki at comme président commune Tall Samba Fara Gaye ñëw def fi fukki at ak juróom-ñaar Mamadou Diallo ñëw def fi euh, juróom-ñaari at Pathé ñu ñëw def fi juróomi boo ko boolee mu nekk fanweeri at ak juróom-ñeent. Mhm. yoo xam ne dëpp ba Ngayen mu ñu ngi sosu 1557 histoire bi ñu leen jox bu ngeen ko dégloo. Mhm. maintenant dëkk boo xam ne depuis mille mille cinq cent cinquante sept mu ngi am ba deux mille dix neuf ci la soog am benn poto courant et tey de deux mille dix neuf en deux mille vingt et un macha allah dëkk yu bare bare am nañ courant avec le programme PUDC bii ñëw. Mhm. nga xam ne tey dëkk yu bëri war naa ko ci taal demee nii jama les jamala muy jama cewi jama basi jàmba. Njaabo jagle Taïf dans, euh, daaru salaam mhm. kër Diané ak euh, yeneen dëkk yi nga xam ne ñu ci yeneen zone yi kon macha allah électricité it doomu aadama mënul dund te amul dund gu ayib te amoo courant mhm. parce que ñun bi ñu amee courant en 2019 ça a complètement changé le train de vie des populations mhm. gune yi nekkoon ci àll bi commencé ñëw ñi amoon seen frigo di jaay sow ci àll bi commencé implanter. wu tey di am machine yi mag commencé activité bi commencé doxaat les populations xalaat na léegi machine bi ñu daan réparé poste Kareeb Ngayeen lañ koy réparer liñ ñu jaayé jaayee fële ñu koy am fi tey liñ daan jëndi Kaolack sax ci bagage tu n'as plus besoin ngay dem Kaolack parce que courant bi am na fi. donc lolu vraiment yaakaar nañ ne d'ici quelques mois man dina am 100 électrification loolu mooy sama yéene. Mhm. su ma ko amut it incha ragal naa ne 2021 balaa muy jeex ba ñuy dugg 2022 muy sori. Mhm. am naa yaakaar ko et maa ci remercie également le directeur général Pape Demba Bitèye. Mhm. parce qu'il est en train de faire un travail consistant. dans le Sénégal hmm. parce que man and na ak mom ci terrain bi yépp partout ci tol ni ñu ngi wara planifier pour dem Diobel man mom hmm. mais je sais que dans le Sénégal dans la politique du président de la République il a fait un hmm. grand e, travail ku wax courant wax ndox ndox mi tamit ñun dañ dan dem nawet jot duñ mëna dem ngayan wala ku dem ngayan yalla ji taw fofu ngay fanaan wala ku jóge fi do mëna dem ngayan do mëna dem ngayan loolu maire moo ko génne muy muy rang bi yoon bi léegi jàmbatu suñu yoon ñu ne déedéet kay ñu ne marché maire della ci taxawati indi ñu marché bii liggéeyal ñu marché bii mu ne du ma foofu parce que ngeen fu ma leen jëmee dama leen bëgg yóbbu ci biir Sénégal mu dal ñëw woo ma ma ñëw mu ne ma kaati ma ne ko am ah, mu ne ma yaay sa village mu ne ko am ah, mu ne ma dinaa taal sa dinaa taal làmp sa dëkk ci moins de un de un mois ñaar fukki fan ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci lañ ko ci lañ ko commencé ci lañ ko taal mooy maire Goumba Gaye ñu ngi koy gërëm nag de gërëmale artisan bi muy Samba Gueye du guddi du bëccëg saa bu ma leen wooyee téléphone ñoom bàyyi nañ leen doon def yëpp déglu ma man de gërëm naa leen sant naa leen ci Pessinguène ah parce nak yag nañu bëgg li mosuñ ko am yalla def na man ci sama haya yalla moo ko defal yalla moo ko def sama haya xaaya gumba mbagay liggey na ak ñaari ñaari président fi mënuma am li yalla def sama bay moom moron borom dëkk bi sama bay jógee fi ñu jox ma dëkk bi ma ma ma gumba yalla andi fi li kon mun naa gërëm gumba kon tay suñ suñ maa boolee ci Sénégal Gambie ngi ni motu 1 km suñ ma bolé ci suñ ma bolé ci Sénégal yalla ak Goumbagay la ak euh, Samba Gueye mi ak Antine belé Antine Tigo ben bi sama won woon ne ma kaate ne ko ah ne ma Antine Tigo la bëgg samp sa dëkk mané ne gumba bu mu ne ma ma ne ko loolu doyna di mu ne ma baxaguma la baxaguma la mané ne ko ah ne ma baaxaguma leen ndax moom lam jàppee pësi fi ne gis nga kii mu ngi wax mu ne dafa dem daaru ñu naan ko pësi ngeen wàcce leen leen courant foog nañ ne gumba tiwiti bu mu nekk rek ci pësi la nekk gumba mu ne moom dafay fay ngor pësi ngeen ndax fii la njëkk a jëlee euh, service fii la njëkk a jàngale ñu ko fii jàngale ko mu jàngale fii juróom juróom-ñaari at ndax juróom-ñetti at gisu ci rëccu kon pesu du ko baye mo dess gannaaw mané ko da nga bax rek waye bari nañu fi jaar taxawuluñ fi lenen amuñ len luñ fay woné yow nak mu ne mané ko bo yemoon ci marché bi kessé neex na pesu nga ñew tek ci nga ñew tek ci ran ran bi yoon wi fi ne 5 minutes doko 5 euh, secondes doko doko daw fek fek daw té dang fi daan nek fi la la wax yalla ci taw do mëna dem kon ñi ngi gërëm gumba bu baax ñi ngi koy sant bu baax de gërëm aussi président Macky Sall ndax bu gumba buy mën lii Macky Sall ko may doole moko ko wax nako ko demal liggéey pesi ngeen su ko waxuloon demal liggéey pasi ngeen gumba du fi ñew ndax man nako bëgg rek waye katana mo fa du àgg kon ñi ngi gërëm Macky Sall ñi ko gërëm diko sant bu baax ndax jappalé nañu jappalé ne bépp gumba ndam lu mu am Macky Sall moo ko may kon yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw fii de filmer dëkk bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla yàlla na ngeen delloo ak jàmm te dikk ak alxuraan waaw. sant nañ maire bu baax a baax a baax a baax parce que ñun depuis juddooguñu ndox mosuñ koo xam mosuñu xam ndox suñu maam yi ak suñu yaay ak suñu baay coono bu ne sonn nañ ko tey boo demoon ci armeel bi boo leen xeewoon ne leen ndox dangay génne sa neeg rek këli ndox duñ ko gëm ngir coono bu ñu sonn suñu yaay yi daan nañ koy dem nekk ci teen yi di root ba 5 ci ngoon ñu doog a dem tëggu ji boobu problème ndox la yàlla def na nag bi président Macky Sall faloo balaa muy falu ñëw na ci dëkk bi mu laaj leen seen bëgg-bëgg ñu wax ko yàlla def bu mu faloo maire tamit falo mooy gumba Gaye ànd ak Samba Gueye mi ñoom tamit bi ñu ñëwee loolu mooy seen première réalisation ci Diamanthié wi ndox dëkk yëpp nag indi woon nañ ci ndox ndox mi jógee ko woon Jama Gaajo Tiwola mu ñëw fii loolu moom moo ko fi def mais dafa ne loolu doyut il faut ma indi leen forage mu nekk ci seen gox bi yàlla def nag moom maire mi moo ko fi def ànd ak équipe am Samba Gueye adjoint au maire ak borom dëkke Souleymane Ba loolu moom ñu ngi ci sant di leen ci gërëm parce que ndimbal bu nga xam ne ni gannaaw yàlla rek ñoom rek ñoo ko mënoon mënuñu ko mënoon a defal bu loolu weesoo bu tawoon kenn mënu dem Ngayen welo boo ko bëggoon a jël Ngayen fii boo fay junne du la indi tey boo defee 1000 francs lu mu guddi guddi welo dina la indi ba fii kon gannaaw yàlla loolu moom moo ko fi def parce que moo fi jëlee piste bi bu tawoon kenn mënu fee ñëw loolu moom gannaaw yàlla moo ko fi def te am na beneen yoon bi mu bëgg a jël fii ci pegg dëkk bi yóbbu ko ci yeneen dëkk yi jama pasi jaar noonu dem jam jama càmba daaw demoon nañ bi commencé ko yàlla def corona bi ñëw corona bi xam nga ne ñëpp xam nañ ne am na lim gàllankoor ci Sénégal wala dëkk ci àdduna bi kon gannaaw yàlla lii nii moom moo ko fi def bi mu fi ñëwee ba léegi amuñ benn jafe-jafe ndox mosul bi manqué fii groupe bi amuñu amuñu problème gasoil amuñu benn problème daal ci dëkk bi wax dëgg yàlla léegi daal li ñu gën a bëggu mooy ñu gën ñoo jàppale rek ci ndaw yi loolu nag président moom moom loolu parce que moo mën a jàppale ndaw ñi waaw parce que xale yi jàng nañ ah bari nañ am ñu am diplôme am na ñu am am na ñu am ay maîtrise ba doctorat sax gën na fi léegi kon nag loolu jàppale moo ci war loolu nag président de la république moo ñu ci mën a jàppale même nag maire am na ci. part de responsabilité li may def na yokk gën a góorgóorlu ñu ne ñu ngi si gannaawam suba ak ngoon guddeeg bëccëg. waaw maa ngi leen di sant leen gërëm euh, asalaamaaleykum am na ñoo xam ne sax bu ñu wax dañoo am émission lay wax ne la bu ñu demoon si armée li suñu way juri bu ñu leen waxee am nañ ndox duñ ko gëm euh, te tey alhamdulilah ndox bi dugg na ci fépp foo xamante ne nii rek euh, ci commune Ngayane la. en fait là aussi li ma ciy préciser mooy mooy li ma la wax dañoo prioriser parce que ndox dafa nekk source de vie. Mhm. nit ki mënul dund dund bu ayib te amoon ndox tey coronavirus bi ñu doon wax kan moo ko mën a xeex ba mu jeex te amoon ndox la première chose j'ai dit au conseil municipal il faut d'abord en priorité ñu régler trois actions prioritaires ñu ne ma ñan ma ne benn bi il faut que fu dëkk nekk robinet fekk la fa nga am ndox parce que tey ni am nañ ndox mais c'est pas hygiénique ma leen benn boobu il faut ñu régler ko 100 deuxième bi.

pour l'implantation d'un forage à Daruma mm. parce que je suis en train de faire un travail sur la connexion des forages. ba nga xam ne forage bi est fii ak bi dama problème mais nous, dama koy en collaboration avec Flexo parce que nous ndox mi dañ population mais Flexo nous ko jël ñu privatiser ko et là nous ngi Flexo parce que depuis que nous avons Ngayeen ba léegi mbir mi day améliorer

war nañ mën a installer ay puits solaires yo xamné ne tay tay tey jant ci lañu ñuy di arrosé ñu am jamm di bay noor nawet duñ fay dara. et là j'ai déjà fait l'étude. Mhm. je crois que c'est moins cher. les Gambiens l'ont fait en Gambie. Mhm. je suis allé en Gambie visiter ces réalisations. mais je crois que c'est porteur on peut les porter. Mhm. et ça a un c'est un coût moins moins cher. donc permettre bu nek ñu def fa ben puits solaire pour que non seulement nit ñi di naan ndox mu set mais également ndox moom ñu utiliser ci maraîchage bi. Mhm. pour que juróom-ñeenti weeru noor bi fu waay nekk nga mën a liggéey te doo fay doo fay dara. l' a été expérimentée à Passingayène. Mhm. na teen bu fa nekk dañoo installé eh, puits solaire foofu noonu. tey quand bi yëpp a ngay am ndox te kenn du fay dara donc là vraiment c'est c'est c' est important. Mhm. mais loolu population yi ñoo ko def ñëw ñaan ma ma jàppale leen ci. la ma man sama képp tu lay kattan. mais bëgg nañu généraliser ko mhm. euh, kéemtalaay kàttan boobu sax dafa mel ni moom nga dugg tamit ci yoon bi parce que gis nañ ne pour nga jógee woon euh, fi nga xamante ne mooy euh, dugg si ngayeen ñoro ak ngayeen sa ba dafa amoon benn problème boo xam ne ko daan am ci yoon bi mais gis nañ ne bi dem bi fi bu ak bi ñuy amna am changement boo xamante ne c'est vrai moo dem ci àll bi baax na mhm. un journaliste foog nga dem ci bi pour nga a xam say élément mhm. li nga wax c'est ça la réalité na temps bu la timis fekkee mel na sa wax ñëw bu la taw bu rëy fekkee mel na sa wax doo ñëw nga kon tey bu ñu toogee bu ñu ne mel na sa am na yoon directement ba jàpp ngànta piste la nag gaa tey ñu ngi tendre vers le bitumage hier j'ai rencontré le directeur de la journée Diouf dans son bureau ko ñu waxtaan parce que on dañ bëggoon ah dañ bëggoon abana ngànda Kaffrine avenant boobu quand j'ai rencontré le ministre ci lañ doon waxtaan pour que ñu xool avenant bi ñu jéem ci réaliser nganda Parce que le pont de, le, pont de Farafagné a été inauguré, c'est vrai. Mais le pont de, le pont de Farafagné, son importance capitale, nous ne pouvons pas butimé, Gandap, Parce que camion, il y a chercher bagage, jëm Touba jaratul ngay jaar Kaolack. Mhm. tey booy dugg Kaolack tey heure t'es tey ba doon dem Kaolack mu 30 minutes ci entrée Kaolack. Mhm. parce que embouteillage camion ñu chargé ngooñ joowu Casamance ñu chargé mango ñu chargé orange ñu chargé limon ñëpp tant que yow mi yor oti bu ndaw war dem CRDS da un am problème fou. mais t'as eu, ñu réaliser un axe bii camion bi bu jow koo du jaar Kaolack te camion yooyu bu ñu wàññeekoo ci yoonu accident yi wàññeeku. Mhm. parce que encombrement bi camion yi n'yom ñoom ñoo def tu vois donc Lolo, moi je dis que moi moi li nga ramener, moi moo ci parce que réaliser nañ tey 23 km. mais également réalisé nañ piste bi jógee ko euh, croisement Sangap dem Looyeen seet Ngayeen Cakkeen Ngayeen mhm. continue mais également réalisé nañ Ngayeen parce que Ngayeen piste comme piste réalisé nañ Jama Moussa jamo Gaajo mhm. tey ñu ngi réaliser croisement Ndiabo Daaru Mbab amna ko ku ma laaj benn maire dama dama bëgg wax nga nga xam ban secret nga am ci piste yi. <laughs> ma ne ko soo ma ban secret nga am ci route bitumée ci lay gën a mhm. parce que on on doit dépasser les pistes. les pistes oh, parce que piste yi chaque année da ngay entretenir. Mhm. alors que là c' est des c' des peines perdues. di nit da ngay liggéey loo xam ne c' avec la durabilité donc tey man li ma gis mooy wax naa ko directeur on va faire de telle sorte que même les salles de classe ak yoon yi ñu def. mu tendre vers dix ans yoo xam ne doo ci laal dara. Mm-hmm. loolu mooy la pérennité. Mm-hmm. mais loo def ren déwén nga defaat ko laalaat ko. c'est bien am ko mo gën ñàkk waye mhm. waaye bu ko mënoon amee noonu daal je crois ko mo gën mhm. et que Ngayeen vraiment tout gros village fo nek rek amna yoon boo ne mhm. vraiment mu nga fa dem te do am ben problème machallah euh mu mel ni ñi tamit dal dinañu gis sen bopp ci magistère euh maire Goumba Gueye puisque bi gis nañ ay hall yu bari yo xamante ni village amnañu ko nga xamné dañ doon déplacer wu euh, di dem ba Medina Sabakh wala ñi dem ba euh, Kaolack pour outil ay ndug et tout ça ñoom ñu tay ñu satisfaire bu baaxa baax ci li nga xamante ni hall mais aussi pour financement jigéen ñi gis nañ tamit ne eh, jàpp nga ci bu baax a baax. waaw xam nga jigéen dafa bokk dañoo nekk couche boo xam ne. Mm-hmm. dañoo bokk ci société bi. Mm-hmm. te war a jiitu ci si kii société bi. Mm-hmm. te jamono yooyu ma xooloon ne xaj na dañ leen xawoon a kii daal. te dañoo nangoo liggéey te dañuy leb di fay. moo tax biñ ñu rek automatiquement dama ne il faut que ñu seet pexe mu ñu def. parce que au lieu yooyu nga wax. jigéen bu xëyee këram ñom ñoy dem marché ñoy jaay marché. Mhm. nga jël sa njaay lal ko ci souf poussière bi ñew di ci dal nga ñew jënd ko togg ceeb bu neex. Mhm. ceeb bi neex na way fa mu joggé hygiène vraiment amu fa. j'ai dit aux gens que euh, au conseil municipal il faut ñu trouver condition yo xamné non seulement dañuy bay tuddee mais li ñuy bay fay am hygiène. Mhm. donc automatiquement on s'est dit que nañ seet magi mag yëpp ñu tabax fa hall de marché. mais yalla dem na hall bu ñu tabax rek jigen ñu organiser lañ ben comité de gestion bo xam tay tay comité boobu boko ko laamoon lu mu nee alal jox ñom ñoko ko dajale seen bopp. lu fa yaq mu nañ ko mu nañ ko defal sen bop donc lool c'est c'est c'est fondamental benen bi moy que ne jigen ñi aussi bo len jàppalee ci walu financement non seulement danañ fay mais dañu liggéey parce que am nañ ay périmètres ay am nañ ay permis maraîchers automatiquement j'ai signé des conventions avec chambre de commerce j'ai signé une convention avec les crédits mutuels j'ai signé des conventions avec des partenaires comme ay Nous, Nous, nous sommes des ONG Nous avons appelé ci ay financement je crois que convention bu mujj bi 12 millions Nous bu mujj bi rek. 7 mhm. millions la. da ngay dem ba ñoom ñiy nous, da ngay financement ça suffit largement pour que nous liggéeyal une ligue maintenant li ci des accélérer accélérer un peu euh, l'information, mhm. parce que financement rek il faut que nous ayons appelé à ko formation. faut il faut nga former nit ki loolu ñu ngi ci et je que dans peu de temps dañ ko boole ak la jeunesse romb nga ay jigéen fii ci bunt bi dañ ñëw pour inscrire dans le cadre des projets Agri Jeunes loolu bu leen tax a jóg trois jours yëpp ñoom ñu ngi fi donc ñu ngi ci loolu je que au fil du temps danañ dema dem ba nit ñi dañ man a moom seen bopp et maa lay wax ne réew mu bëgg a développé wu di nga sukkandiku ci ñaar mbay mi doo ko bàyyi mais jigéen ñi également doo leen doo leen sàggane yaa ngi doxal loo xam ne tey fooguñu woon ne ci àdduna dina dox ba jigéen mën a taxaw di di di def takk sa tubay dugg ci àll bi di xam li nekk ci àll bi. Mm-hmm. dañ daan toog rajo bu ñu ko déggee Dakar la. Mm-hmm. télé bu ñu ko déggee Dakar la. tey nga nekk jigéen takk sa tubay dugg ci àll bi c'est ça la réalité donc développement bi dafa war a am nu ñu ko war a téye téye bi mooy kenn ku ne d'abord ñu yee nit ñi ci conscience ay jigéen ñi ñu la gisee tey ci àll bi nga jàpp sa caméra di leen di laaj di gëstu. dañ xam ne ñoom kat ndeketoo bokk nañ ci réew mhm. lii moo tax jigéen ñi tey mhm. ñu organiser leen financer leen accompagner leen am na fédération famille bi fa nekk boo xam ne ministre de la femme yónnee woon na fi fan yi ci ginnaaw uh-huh. délibéré nañ leen terrain boo xam ne ñoom ñoo ko moom boo ëllëgee dañ ci tabax am nañ sa euh, foyer de la femme mu ngi fi on va les accompagner am na yenn fédération yu juddu mhm. parce que aussi copp-copp mayewul dara dañu def fédération lëkkaloo formaliser ñu am këyit ñu mettre leen en contact avec les institutions bancaires. ñu mën a amal seen bopp financement yoo xam ne ëllëg. mais may saluer au passage également les ressortissants de Ngayène vivant à Dakar parce que am na ñoo xam ne tey. ambulance médicalisée ngay dégg. am na ñoo xam ne tey ñoo ñi nekk Dakar ñooy jël seen alal ci ko dajale. je donne l' exemple de Sine Ngayène ñoo ko dajale ne ñun de am nañ temps dañoo bëggoon jënd ambulance médicalisée mais loolu c' extraordinaire. Mm-hmm. parce que doom bu ne ci àll bi saxal di dañ nga dimbali sa waajur ci dëkk bi mais loolu c'est extraordinaire. dimbale waale maire bi aussi dimbale waale maire bi. Jama Moussa tay war am nañ poste santé ICP bi ko dina ñëw fi ak une semaine mais tay fi logement ICP bi ressortissant yi ñoom ñoo dañuy jël sun alal tabax ci jàppale maire bi tabaxal ko logement boo xam ne bu ICP bi ñu dëkkaale ci. Mm-hmm. en attendant maire bi mom jàppale ñu jàppale ñu ci ay garab. tu vois loolu c'est des c'est des gestes salutaires loolu mooy la contribution des populations. Mm-hmm. moo tant que mettre les populations en avant tant que impliquer une nit ñi ci li def. tant que boolewuñu leen ci li def tant que bàyyiwuñ suñu bopp ne maire bi ñu fan nii diir bu gàtt chaise bi njëkkoon ci te duñ ci mujj. Mm-hmm. jarul mooy ba mu dëgër pour ñu liggéey lu nit ñi jëriñoo ça peut poser problème. Mm-hmm. parce que la ñuy xalaat dañ ko yenal rek si ñun. alors que li ñu war a xalaat dañ ko war a yenal ci population te yaa ngi ma gis bi may xëy si ñëw fii. Mm-hmm. damaa dox ak tànk ñëw sama bureau. Pourquoi Parce qu'il faut mettre en priorité l'action des populations au détriment de l'action du maire. Mhm. Ce n'est pas le maire qui est en priorité, mais c'est les populations qui, sont en priorité. Qui sont en priorité. les sont là, maires sont là, maire de population. Mhm. Mais on ne peut pas traiter un maire de luxe, on ne peut pas traiter un maire de roi au détriment des populations. Ils ne pas classer, ça pose problème. Mhm.

Vous médiatiser. Moi, je crois que ça va servir d'exemple pour le développement, ce n'est pas quelque chose d'une manière extraordinaire. Si vous voulez dire que vous avez une mère, vous avez une mère, vous avez une mère, vous avez Non, ce n'est pas, pas ça un développement. bien à l'aise. je suis très bien à l'aise. Je suis très bien à l'aise. Je suis très bien à l'aise. Je suis très bien à l'aise. Je suis très bien à l'aise. Je suis très bien à l'aise. Je suis très bien à l'aise. Je suis très bien à l'aise. Je suis très bien à l'aise. Je suis très bien à l'aise sama feeñ c'est ça ma réussite man loolu la japp na moy réussite mais sama réussite doonul tay nit ñi jiital ma ci askan bi may dëkk ci ay étage doxee oto yo xamné kenn mënu ko dégg di dem ay voyage extraordinaire dans les hôtels di ñëw di tok alors que population dara nekku fa mhm. nga baal ma bokku ci mais mhm. c'est mon point de vue là non non ci ci la bokk sax parce que euh, am na ñu bari ñoo xamantene tay bo boo leen waxoon nga dugg ci sa askan bi ay maire euh, pour ay réalisation duñ ko def parce que ñemewuñu ko ben passage la bo xam dañ ko joon duggal 9 ans ngeen toog coow li bari woon na ci seen mandat yi dañu war a jógee fii dañu war a organiser ay élection maire yi jeexal nañ président mu ngi yokk mandat bi te yéen a ci cappaandaw gi est-ce que pare ngeen aussi pour sampas seen dënd laajaat mais euh, commune bu Ngagne Sabakh waaw xam nga li ma ci préciser rek mooy mhm. Sénégal dañu fexe fexe ba su mandat jeexati nañu renouveler instance prolonge mandat moo fi war a jeex mais coronavirus la njiiti réew mi tegoon pour ak li nga xamante ni mooy fichier électoral bi waaw xam nga corona bi ni mu mujjee nii. Hmm. bu ko nit ñi xamee mu njëkkee ko liñ ci ñàkk ci alal duñ ko ci ñàkk. Hmm. xam nga yow xam nga loolu. Hmm. yow bëri na lu mu la doon dawloo ak lu mu la doon moytuloo bi nga demee ba am prise de conscience yàqalatul liggéey yaa ngi liggéey te yaa ngi jël say mesures. il suffit uniquement de vivre avec de prendre des mesures barrières mais comme lu bees la woon xamuñu ko. moo waraloon coono bii rek mais li neex ci mandat daal dañ la teg ci barab juróomi at waaye waaye bu juróomi at yi jeexee nañ ñëw na la yow kat ñoo la fi tegoon abal ñu tànn. buñ la tànnee del si wàll tant mieux buñ la tànnut kuñ tànn nga jàppale ko la nga xam nga sottil ko mu avancé loolu mooy avancé loolu hmm. mais man mënu ma nekk fi éternellement quant à nag candidat laa wala du ma doon candidat man bi may nekk maire commune Ngaye ñëw ma woon ne man de fan leen te may wax télé laay wax wala site laay wax ñëpp ak may gis hmm. ñoom ñoo xalaat ne kii de bu ñu ko jiitalee mën nañ am résultat ci commune bi ñu ñëw ba sama kër fekk ma li ma ko waxee ma may leen ma ma xalaataat bi ma xalaataate waxtaan li ma war a waxtaan rawati ki ci jiitu mooy sama waajur wu góor man ma nit ñi bu ñu la soxlaa demoo wala soxlaa kenn du ñëw. Mhm. il man mii sa papa nekk naa fi 10 ans jàppalante lii moom ma indi fii man mosuma nekk sax conseil mosuma doon conseil municipal waaye nag ku fi yàlla mosoon taaj muy président communauté rurale. Mhm. lépp looy def dig ma oo ma laaj. Mhm. ma jàpp ne dañ leen war a dimbale. kon du man may toog naan candidat laa du ma candidat. dañ ma woowoon ne ma kaa ñu jiite la ngir ngir nga dimbale askan bi jéem naa la ma man baax na wala baaxul yow bi nga demee ci àll bi ñoom ñoo la koy wax. yow tey yaa ma ci gën a xam dara man li nga ci xam tey man xaw ma ko ci. sincèrement. parce que yow dem nga foofu bu ma nekkul laaj nga leen mais xañ na man su ma taxawee am na ko waroon wax du wax. kon ñoom ñi ma tegoon ne doy nañ la jiital nañ la bu jeexee buñ mënee ñëwaatal waaw ma dellu ñëwaat rek. poser candidat ñu jongante suñ ma waxut ñëwaatal ah man fonctionnaire la mhm. ma delluwaat ci sama emploi demaat liggéey rek. Mhm. ku fi yàlla taaj rek. wallaahi na ma jàppale woon ñee parce que xam naa ne li ma yor ci bagage. Mhm. su ma la ko sottilee tuuti rek soo góorgóorloo commune bi dina mhm. askan bi moom dafa mel ni investir nañ la ba pare sax parce que nee nañu jarul nga ngay battre campagne ñoom ñooy demal wàttal seen bopp <laughs> si mbedd mbedd bi campagne. donc <laughs> <laughs> monsieur le bu baax a baax euh, am am mbégte tamit toogaat ak yow wax dëgg yàlla nga ubbil ñu say porte ñu mën a def liggéey bu mucc ayib euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Euh, maa ngi leen di sant yéen itam day am yow bi mooy sa ñaari yoon nga ñëw fi. Mhm. Euh, gis naa taxawaay bi ngay taxaw ci commune Ngayeen man aussi vraiment sa passage bu njëkk tax na ma jàpp ci yow idée bu rafet rafet rafet. Mhm. te daam bi ngay bokkal di liggéey di sama rakk xam ne ngeen waxtaan ci lu bari. Mhm. mu bëgg Ngayeen donc bu fekkee ne dangeen ngeen boole site bi ngeen ci bokk liggéey euh, mu yebal leen pour ngeen ñëw fii damay wax ne Ngayeen ku fi ñëw. soo gisee may laaj seet nelaw ngeen lekk ngeen naan ngeen fii sori na sori boo xam ne 101 kilomètres de ko mhm. ku fi ñëwal da nga war a nekk dans de très bonnes kon ngeen ñëw defee 72 heures. daanaka mhm. man ñu xam histoire dëkk mhm. te xam naa ne élément bii ngeen am ci histoire du bëri na ko bind livre bu pare te amoo ko ci. résultat yi li ngeen am ci àll bi nii bëri na ko fi dëkk li ngeen am ci information bëri na ko fi dëkk wala nga nekk conseil municipal te amoo ko. te lu demee nii rek moo koy maye kon maa ngi lay maa ngi leen di sant bu baax. di leen ci lépp loo xam ne rek manquement la ngeen waroon ko am te amu ko. Mm. je sais que lépp luñ leen téye rek vous méritez plus que ça mais comme man duma ma toog may gëmal sama adjoint équipe bi may àndal. Mm-hmm. man damay wax ne euh, doon góor amul ku yàlla jàppale mu am. Mm-hmm. yàlla jàppale yàlla mu ngi tàmbale ci yàlla may na nga am collaborateur yu nangoo liggéey yu fidèle. Mm-hmm. moi j'ai un bureau extraordinaire j'ai un adjoint qui est avec moi qui est toujours avec moi di orienter en même temps pour qu'il lui defar jaral il est régulier dans son travail il est vraiment ponctuel les lu de def dina nga jox orientation ça c'est extraordinaire. Mhm. un secrétaire municipal il est expérimenté il a fait 10 ans ici. Mhm. donc l'équipe, il bu la yàlla avec ak ak euh, état civil bi les gens sont très ponctuels bon fait effort te conseil municipal aussi fakkas fakkas taluñ ma de. Mhm. doo Donc ki pèse la ki AFP la ki appelle. boo duggee doo xam ku farak ñiyee ku farak ñële mm-hmm. donc bu ñu xasee dugg ñun ñëpp benn lañ donc ñoom dañ nekk sama ginaaw bi ma wanee exemple rek ñoom dañ ne ah voilà kon nag nañ si jàpp ñun ñëpp mais man aussi lu may def amul ki APR la ak PR la ak APS euh, AFP la ak mm-hmm. donc ñëpp lay woo su ma jëlee fii ñaar jël fii ñaar jël fii ñaar bi président di ñëw Kaffrine dama woo PS woo AFP woo APR na leen président benn bokk yaakaar la mooy ñëw mm-hmm. kon ñun ñëpp war a dem

donc je dois repartir à Dakar samedi parce que tey laa rencontre DG. donc bi yow ñaax sama mbokk rek ku ci sa bureau wala sa fauteuil bi ak clim bi nga ci nga développer sa commune non de l'eau. Mm. il faut que nga il faut que un partenariat mais aussi la presse les organe fii ci Sénégal ak fu mu mënta doon de développer te defoo une bonne communication ak les koy hmm. et là il nous faut des organes comme vous di les ñaanal di la encourager. Hmm. Hmm. Diop moom je crois à la c'est sa première fois. di wax ne comment mon ma nekk fi ak ma ñàkk fi nekk. fekk sama bakkan bi ngalawang ci chaque année vous devez venir faire l'état des lieux. au mois de décembre vous venez au mois de décembre faire l'état des lieux la ngeen fi bayiwone ak la 6 mois vous état de mi parcours li fi bayiwone ak lañ tambali fu mu toll buñ avez un mois de fin d'année suivi li fi bayiwone ak plan d'action bi lolu dal trois yoyu ñun dinañ ko budgétiser ci budget

nit man na dégg te du xam. fekk na vraiment du kii may remercier population bi parce que population Saloum yëpp lay gërëma. Ah. ndax man fii ni may woo ñëpp population Ngayeen ñoom ñoo ci gën a tuuti mën a ana sax ñoo ci gën a tuuti. Mhm. donc partout dans les autres communes les maires m'appellent les gens m'appellent partout partout je reçois des appels partout. Mhm. et que dañ fiy ñëw ñoom ñëpp bon loolu damay toog ba mu yàgg damay ne mbiru yàlla rek la. Mhm. du lu ma man du ngóor du dara mais xaj nit ñi ñu am seen yaakaar ci man yaakaar jooju ma ciy jéem yàlla di ci sompal rek ma ciy am ndam mais sincèrement man tey su commune bi bu yemoon tey tey ñu ne ma nekkatoo maire wallaay sant naa yàlla bu baax. macha allah et je vais sortir fier parce que dama xamoon sama askan ni duñ doon daj. Mhm. ci transport ci santé. comme ni ñu ko comme ni ñu ko tënkee sànq rek. dama xamoon nit ñi li ñu doon daj. kon mhm. tey bu ñu mënoon tey tey monsieur le maire pare nga. Mhm. wallaay li ma fi am bari te ku fi toogaat dina la orienter ba tu vas faire plus que ça. Mhm. ça c'est sûr là aussi dama ci insister vraiment ñu wàññi wala ñu bàyyi sax maire nekato fa rek paparaas yëpp nga jël ko yóbbaale. Mhm. loolu day tax ki ñëw tok du am fu mëna mën a situé pour mëna a liggéey. donc il faut non seulement travailler pour des résultats mais il faut préparer pour que ki lay sa ëllëg er, ki lay ki am fu mën a pour meuna pour meuna a su ma nee fichier des partenaires yo xamné man depuis deux ans maa koy liggéey fichier des partenaires yow bo tu n'as pas besoin de rechercher les partenaires tu as besoin uniquement de me fi bàyyi partenaire bu nek prénom nom adresse numéro de téléphone am nga jël nga woo ko. le travail avec lui donc loolu dal ma ngi len ci remercier bu baax di sant di gërëm. Mhm. di euh it euh, euh, l'autre là Dame Tambitu. Mhm. maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant bu baax euh liko war def nako ngayel ngayeen. Mhm. li war daam liko war def nako ngayel c'est lui qui m'a poussé le plus à être maire. xamna naa loolu xaw yéen yéen xam yéen xamu leen histoire boobu. il m'a poussé. am na luñ ci xam ndax waxoon nañu ko. parce que man boobu doon maire ak ñàkk doon maire ça m'a laissé au pôle nord parce que maa ngi liggéey ci ONG yi en même temps j'étais fonctionnaire mm-hmm. mais daaw toog aussi jour bi xam nga daal du matin jour ci ñëw ba këram je mm-hmm. parce que boobu leneen amoon na mais ci farloom ci taxawaayam mu ne daal askan bi yow lañ yaakaar na yaa ñu mën a dimbali il faut ñu bàyyi suñu sas ma ànd man ak moom ñu dem Dakar. Mm-hmm. mun a conscientiser nit ñi parce que boobu am na leneen lu amoon loo xam ne su continué woon rek du doon intérêt Gaël. Mm-hmm. kon je ne manque pas am précision précisée dam tam bi du liggéey boobu mu def ko. Mm-hmm. te loolu ci la nekk ba tey. maa ngi ko yóbbante ngërëm di ko yóbbante sant di ko ñaanal également. yàlla may ko fan. Mhm. jaajëf euh, monsieur le maire ñun tamit ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax lii moo ñu fi tax a toog euh, euh, wër fi nga xamante ne mooy ci commune yi partout nag ci Sénégal te dee njaaxaanaay ba kenn ku ci nekk ci yéen li nga liggéey tamit ñu war ko mën a wane di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo ñu jàppale bi nag moo nekkoon deuxième numéro bu seen émission en route vers les locales élection oblige mais li nga xamante ne ñoo ci des tamit nañ ñu xaar ah ku liggéey dinañ wane ku liggéey tamit dinañ wane kon naka xaar leen ñu ngi ñëw ci seen kaw di jaajëfal Pape Meyssa Diop l'incontournable caméraman maa koy gërëm bu baax a baax yoon bi métti woon na lool mais lepp mu ngi assuré donc ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal équipe bu Saloum Actu amul xajaram amul seen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal ah, di wax ne rek ne eh, yéen ñi nga xamante ni tamit yéen yéen a ñuy topp si Saloum Actu ñu ngi leen di ndax bu ñu mënee déplacé wu yéen la parce que yéen yéen ñu yóbbu ci benn niveau boo xamante ni eh, dëgg yàlla eh, am nañu fi njëkk am amuñu ko woon moo tax it ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne rek ah, des leen di suivre ñu ay programme ak